ci seen portrait à la bu tey bi ñuy waxtaane kenn koo xam ne dundam daanaka lépp alxuraanul karim la ko jagleel kenn ci doomu mawlaana cheikh al islam El Hadji Ibrahima Niass ñu gën koo xam ci Zeyda Mariama Niass mu ngi gane si àdduna 1932 Koosi benn dëkk bu sorewul lool Kaolack waaye juróom góor Baay Niass teel koo dugal alxuraan ba mu amee juróomi at dénk ko cheikh Mouhamadul Wuld Rabbani di jàngalekatu alxuraan bu ñu ràññee ca Mauritanie cheikh bi jàngal ñu bëri ci doomu Baay ci ràññeeku mooy dafa am kóllëre gu mu fasanteeg alxuraan ba muy ndaw bëgg gi mu bëgg alxuraan teel a ñëpp ba ñu ngi nettali bi mu nekkee xale daan jàng alxuraan danaan wax wustaasam ne ko na ko bàyyi mu jàngal ñi nga xam ne ñooy ay xaritam ndax mokkaluñu bismillahi rahmaani rahim qaala alam aqul laka innaka lan tastatia maay sabra Baye Niass El Hadj Ibrahima Niass bëgg ko daan ko may ay cadeau yu dul jeex ba mu wegoo alxuraan ba mokkal ko la ko bàyyi jël daan ànd ak moom ci wayaas yi mu daan def ci biir àdduna Cheikh al ci boppam El Hadj Ibrahima Niass moom moo jàngal Seyda Mariama làkku arab ak science religieuse ki ñuy woowee yaay booy dund na ak Baye Niass dend ak moom lu war a tolloog 43 ans bàyyi mus na ko wax ne ko sama doom yu jigéen yépp samay xarit lañu waaye yow da cee raw ndax ni nga bëggee alxuraan moo tax ma gën la cee bëgg li la Seyda Mariama ma ko nettali. nekk ci alxuraan ci sama baay sant rek alhamdulilah. ci laa nekk ba tuuroo taxaw de wax na ma ne de laa jàngal alxuraan la waaye yaa ko gën yaa ko bëgg loolu moo wax ci sama kanam. ginnaaw bi mu wàccee alxuraan boole kook science religieuse Seyda Mariama Niass 14 ans rek lay am tàmbalee jàngale alxuraan ca daara ju nekk Kaolack ci bi 1952 jotee ci la ànd ak jëkkëram ñëw ndakaaru sëy si jàngaleem alxuraan nag dikk ndakaaru taxul mu bàyyi ko benn yoon ndax ay doomi wu jëm ak xale yi dëkk ci quartier bi la doon dajale këram foofa ci avenue Malick si di leen jàngal alxuraan ca noonu ñi bindu ci daara ji gën a bëri mu dem ba jël jàkk ji jëkkëram tabaxoon ci biir kër gi di fa jàngale alxuraan week-end yi daana jàngale alxuraan lu bari ak grande vacances yi jamono di dox ba yàlla def président Léopold Sédar Senghor jóge ci boppu nguur gi jox lenge yi Abdou Diouf 1981 Abdou Diouf di wër këru diine yi di leen siyaare yi ngir sàkku ci ñoom ñaan bi mu yegsee ba Kaolack ci la ñu doomu Baay Ñas bii di Seyda Mariama mu àndaaleeg ay dongoom yi mu jàngal alxuraan ñu ñëw ci cérémonie bi ñu doon dalalee Abdou Diouf xale yi jàng fa alxuraan jàngin wu taaru jàngin wu rafet woo xam ne Abdou Diouf da xale yi ki leen mu fixé rendez-vous ak Seyda Mariama ci liñ ñu xamal bi mu diké fi ci ndakaaru ñu recevoir ko ci palais ba Abdou Diouf jox ko ben terrain bu yaatu fi ci Padoua jakarlok autoroute à bi en 1984 mu duppee ko complexe El Hadji Ibrahim Niass don bërëb bu ñu jàngalé enseignement général ak alxuraan Abdou Diouf boole kook leetar jamono boba né ko mën nga dem ci buuri arab ak émir nga outil financement ngir nga mëna tabax terrain bi ma jox mu nekk sa complexe islamique bop ci carnet d'adresse am mu dem wuti comme am ci doy lu mën a tax sax mu tabax fii Patte d'Oie boole ci Sacré-Cœur ak Mermoz ci li mu ñu xamal. internat bi fii ñu fi nekk ñëpp amul kenn ku nga xamante ne moom da ngay fay. loolu yëpp mi ngi jógee ci poche soxna si Seyda Mariam Niass. institut islamique El Hadj Ibrahim Niass daara la ju ñu yaatal ba enseignement général dugg ci complexe Cheikh al Islam El Hadj Ibrahim Niass bu Padoa bi dañ fay jàngale enseignement général dañ fay jàngale it alxuraan ndax alxuraan mën naa ànd ak xam-xamu àdduna te xam-xam Baye Niass daana wax ne jar na wuti ba Chine loolu moo tax Seyda Mariama di jàngale lu war a tolloog juróom-ñeent ci weer ci fukki weer yeeg ñaar yi ci at mi waaye moom Seyda Mariama réew ndax waaw nationalité yi fu baik la ñuy bàyyi ko ci àdduna ngir ñëw jàng ci moom alxuraan dina la jàngal alxuraan jàngal la xam-xamu àdduna mbir yi di dem ba xajatul ci la bu mermouse ak bu sacré cœur waaye sayda mariama yaay ju baax la yaay ju mën këram li koy firndeel mooy am na lu war a tolloog juróom-ñetti bant waaye jàngale alxuraanam moomu terewu koo toppatoo njabootam ba def ci xam-xam ak alxuraan ci seen dënn taawam bu góor di cheikh tidiane ben amar agronom agronome de formation la ginnaaw bi mu ay at yu bëri FAO di organisation des nations unies pour l'agriculture ci la dellu si Dakar wuutu yaayam ci liggéey bi mu sembal l'islam ngir jàngale alxuraan tey jile taawam moom moo jiite institut islamique à la Ibrahima Niass doomam ju jigéen ji ñuy wax Aïssatou Kane nekk fonctionnaire ci gën ma mag ci BCEAO bu Dakar Ousmane Kane ginnaaw bi mu jàngee al bu noppi ci la dem wéyali États-Unis foofa la amee doctorat tey jii Kat, le chercheur le ca université bu Harvard Il est di wane ne yaay booy Seyda Maria Niass ginnaaw alxuraan xam-xamu aduna bu doomu adama di ajowoo da koy def ci njabootam waye def ko ci mbollem doomi rew mi Seyda Mariama jàngalekatu alxuraan la yare kat la lu nit ñi wara xel ndax fi ci Sénégal décoré nañ ko fi de la médaille de l'ordre national du lion en 2016 ki ko def di président Macky Sall ginnaaw Abdou Diouf jappalé bu mu ko jappalé ak président Abdoulaye Wade kon ci 2016 la am ordre national du lion pour service rendu à la nation Berinu nañu yaru berinu nañu berinu bari nañu bax ba seeni wayjur di len Seyda Mariama def na ci liggéey bu am solo daaray alxuraan yu Seyda Mariama Ñas ju mu jiite ni ñuy solo ci école nasaraan yi lañ fay solo lañuy jàng ci nasaraan sa lañ fay jàng waaye dañ ciy boole alxuraanul karim looluy bëgg-bëggu soxna si Seyda Mariama du jàngalekatu alxuraan rek yem ci éducatrice la kuy def yar ci doomu aadama la tey jii am na 88 ans nee na du retraité. fekk maa ngi koy man retraité fa su ma koy ne bindal xare alif baat ma dem a taasa loolu jërëjëf Niass Goudel fan Seyda merci pour service rendu à la nation sénégalaise